Euh, sa passation de de de, service nga ñëw avec habillement euh, euh, boo xam ne tàmmuñu ko di di di gis dans les dédales de la de la République ça avait ça avait fait jaser certains avaient apprécié disant que euh, le retour aux sources certains avaient dit euh, que quand même un ministre de la République dafa am euh, euh, code vestimentaire alors c'est quoi ton histoire avec euh, le le le le bailage <laughs> ça m'a fait beaucoup rire. <laughs> Ah parce que comme ni ma la ko waxee imaginel de 1988 au lendemain de l'année blanche À l'université. Au, au, au, lycée Lamine Gueye. moment, j'étais au lycée mm. Lamine Gueye. Depuis boobu ba 2008 awma beneen yére bu may sol bu dul baylaat ça fait vingt ans. ah bon. ay baylaat rek laa doon sol. de 1988 à 2008 moo tax bi ma ko solee euh, ñu bëri yaakaar ne peut-être euh, voilà damay wut buzz wala dara mais nit ñi xamuñu ma mais ñi ma xam bon loolu jaaxalu leen parce que loolu lañ ma mos a xamee. Euh, deux 2008 laa njëkk a commencé après 2008 laa commencé tol yëre tubaab boobu dafa fekk ma tombé ma dem Belgique ak sedd beeg yooyu alors il fallait ma tol ay yëre tubaab donc foofu laa defee glissement boobu euh, di ko boole nag di boole ñaar yi euh, ba finalement mm, tënkootuma lool ci ci ci ci baylaat bi parce que. mais doo ko yóbbu conseil des ministres. Hmm? doo ko yóbbu conseil des ministres. ah mais pourquoi pas amaguma occasion chance kii ko parce damay changé lu ma sentir rek sol mais. Euh, conseil des ministres waxuñu ne doo bul sol bàyyi laal wala kii. conseil des ministres la la la tradition dafa am un code vestimentaire. non code vestimentaire surtout pour les bi ay euh, li muy bañ rek mooy yére bu relax par exemple li lay wax costume sombre hmm? euh, cravate discret mais. waroo toll loo xam ne dafay euh, fës lool waroo toll également loo xam ne dafa relax danga nga war a xas toll donc daal lii sa code vestimentaire la euh, ñi la xam xam nañu ko